voilà euh, tur bi c'est Abdou Wane voilà waaw am ay victimes xam nga quand Fouta est touché le Sénégal est touché plus particulièrement les Alpulaar nous sommes très touchés parce que ñu ngi fii depuis ce matin voilà c'est ça bon non c'est des proches c'est des proches des parents waaw te yëpp benn bopp la quoi voilà bon on que des eu que des décès quand même on a enregistré trois décès dans le Fouta dans le département de Podor quoi c'est ça. ñu ngi koy présenter tous le peuple sénégalais voilà. voilà la prudence rek prudence rek nit ñi il faut que chauffeurs yi aussi yaatal seen xol yaatal seen xel bàyyi excès de vitesse yi surtout ñu ngi ci jamonoy nawet bu ñuy daw ñu jéem a dawee nànk bu ñuy chargé ñu chargé nombre bu normal n'est-ce pas ñu bañ a surchargé oto yi bañ aussi teg poids ci oto yi. daw aussi vraiment daw bu sérieux parce que code de la route caaxaanul boo respecté code de la route yàlla mën na la dimbale ba jëy yu bëri du am c'est ça voilà. oui koy respecté très bien en tout cas un cas particulier à Louga y a une solidarité agissante Louga moom bu fi accident amee même bu dee benn nit c'est tout luga ki sort premier réflexe bi ñuy def mooy dañuy demander au moins du sang. dañuy ñaan population bi ñu génn maye deret ñaareel bi dañuy laaj population bi ñu indi glace te loolu lépp gis ngeen fii ñu taxaw ni mu tooye donc euh, li ñu soxla woon yëpp daal am nañ ko ci voilà c'est ça quoi. ndogal di forcer de sanctionner les chauffeurs véreux rek loolu mooy affaire bi les chauffeurs véreux il faut les sanctionner c'est tout parce que il a tous les moyens de sécurité sur la route parce que déjà boo gisee code de la route. ah mu am ñu tracé matérialiser tali bi def ay tableau tu vois même des chauffeurs yi nga xam ne dañuy yàq tableau di ko damm donc lool bu amate bu amee rek déjà insécurité am na ah la première prudence mooy c'est de rouler tout doucement benn ñaar chauffeur bu ne xam nga li nga attan pour mën ko dawal dawalal vitesse bi nga xam ne di nga mën a maîtriser oto bi parce que bu fekkente ne 80 nga mën a daw moom rek nga mën a daw nga daw au-delà de 80 tu peux plus maîtriser le véhicule surtout avec l'état vraiment des routes par rapport à la pluviométrie bu tawee

man loolu laa gëm quoi mais quant à mystique jinne karabak c'est non non non je n'y ko. borom yemale ko fii. amiin di jaal waa Sénégal yëpp. ñu xam tamit euh, ñu ñaan état bi mbir mi fi muy amee chaque jour foofu lay amee bi ñuy jullee tabaski ak léegi rek lu fa am accident ci diggante boobu rek bari na mais war nañu taxaw xool lan moo koy waral waaw euh, jóge Fuuta ba fii rek barki dem bi ñu jullee tabaski am na oto bu fa daanu tey tamit même chose mais nañu xoolaat tali lan moo fa xew bu dee dafa xat nañ ko yaatal bu dee tamit dafa am li ñuy fay dawee baaxul ñu jéem a xool nañu monter foofu ay gendarme yoo xamante ñooy saytu ñiy daw côté boobu ba xam ne fii accident bi di am moom toujours foofu lay amee. bi ñu fexee Fuuta daan na am noonu diggante pod euh, kii euh, Dangana ba mu Njum bi ñu defaraatee foofu defa ay kii yoo xamante dóor daan yu bëri jeex jeex na fa. fii tamit bu ñu xamee milieu boobu dafa xat. nañ fa def ay door daal bu nit dawee ba côté boobu mun a wàññi ñu mun a jàll te lu fay tuur ci ay bakkan dafa bari ñaan suñu borom rek yàlla na yàlla yemale ko fii te ñëpp tamit ànd ak dal chauffeur yi tamit lu ñuy dawalee oto yi baaxul ñun xam nañu Fuuta la ñu dekk chauffeur day gontu Dakar fanaani Fuuta bugg a xëyaat fanaani waat Dakar loolu tamit oto boobu toujours mu ngi romb policier bi ci kaw tali ba war na taxaw xam kii dawal oto bi lu tax muy gont Dakar fanaani Fuuta gontuwaat Fuuta fanaani Dakar te nit nit la dafa war a nelaw mais boo nelawul bëgg dawal car buy am soixante et quelques person li mel nii rek mooy am toujours bu lii passé barki demul la amoon foofu noppi nañu jeex na tey amaat état bi na taxaw xool lan moo xew su paree ñu xool lan lañu ñu war a def pour ñëpp mun a am jàmm waaw ñu ngi jaajëfal ñëpp di kamit nuyu incha allah parce que gis nañ ne si bi mu amee état génnee na ay ndàmpaay ak aussi jàppale ñi nga xam ne ñooy famille victime yi naam bu nekkee sax bakkan du alal moo ko mën a remplacer. waaw loolu moom euh, xëy na am na ñu fi ñëw sànq ay niti état lañu ministre tamit ñëwoon na fi xëy na ñoom ñu ngi ci loolu ñun moom ñu ngi woon ci biir suba ba léegi di dimbali néew di dool yi ñu ci fi nekkoon ak xale yi ci nekkoon di pour jàppale leen comme ñun ci dëkk bi lañu nekk ñoom tamit dañuy jóge suñuy ñëw fii. ñu taxaw leen mais ba léegi gisuñu dara xëy nag état bi mu ngi ci biir loolu ñi ñëwoon nañ fi ay nit yoo xamante ne ci politique lañ ñëwoon nañ fi xëy na ñu ngi ci dox loolu waaw. loolu li ma la wax moo am xam nga amoon na fa amaat fa amaat fa toujours état bi moo war a taxaw xool lan moo xew suñ ko xoolaatul rek lii tamit day continuer di di am rek te ñaanuñu ko yàlla waaw toujours foofu la koy amee foofu la vingt quelque amoon bii yoon tamit fa la fa la amee nañu taxaw xool lan moo fa xew wala ñu monter fa ay quelques eh, gendarmes yoo xam ne ñooy seytu loolu ba xam lan mooy waral toujours accident yi dafa am. ak heure yi ñuy daw tamit il faut ñu xam ko parce que oto mën na gonto ci ci ci ci àll bi ñëw ba fi ñu wax ne minuit oto du jàll. fi ñu fanaan du fanaanu boo xamante ne bu normal nit ki du nelaw nelaw bu bu am bu doy nga bëgg jóg nag ci diggante boobu seddaay bi ak coono bi ngay am su nelaw amee rek accident yi ngay gis mooy am mais il faut ñu saytu ko ba xam lan moo waral toujours oto bu ñëwee ba foofu day këpp. ñu ñu xoolaat bu dee tali bi moo baaxul ñu defaraat bu dee tamit euh, dafa am leneen lu ñu fa war a def tamit ñu xool lu ñu war a tooxalee ba ba lépp mun a teguwaat ci yoon. Mhm. Euh, donc euh, salaamaaleykum maa ngi tudd Samba Demba Ndiaye di ancien député dëkk village bu ñuy wax Juude Jaabe mi xam ne accident bi dal am na ci sunu njaboot ñoo xam ne dal na leen ñun ak suñuy dëkkandoo nag du ñun rek parce que. am nañu ci faatu ñu dëkk euh, Sourey defe naa am na aussi waa Setaake am na Kaskas euh, am na goleere donc euh, suñuy dëkkandoo ñun ñëpp ñoo bokk tiis bi. Mhm. waaw ñii fi am ndombul tànk ñoom ñëpp dégg naa ne fii lañ nekkoon ci suba ñi nga xam ne ñu ngi ci woon ci dëkk bi muy monsieur le maire muy le président du conseil départemental muy aussi le ministre Mansour Faye ak euh, le ministre de l'intérieur ñoom ñëpp dégg naa leen fi fekkante wuñ fi parce que euh, man dama yéex a jóg mais ñoom ñëpp taxaw nañ fi taxaw nañu nit ñi ñu ngi ci profité di remercier vraiment les population de Louga parce que solidarité bi ma fi gis euh, gisuma ko fenn parce que dégg naa ne bi lii amee ñëpp dañoo ñëw ci hôpital bi pour maye deret leneen li mooy ku nekk fi nga war a mën a jàppale nit ki jàppale nga ba léegi ci 18 heures la fi ay xale yu jigéen ak xale yu góor dox yore ndox ndox mu sedd di ko may nit ñi volontairement donc loolu lépp lu ñu war a sant la sant yàlla sante ko les populations de Louga ci euh, taxawaay boobu ñu taxaw Mmh. monsieur le président de la république defal na ay tali ci région yi ci mmh. Sénégal ñu ngi ko ko ci sant di ko gërëm mmh. mais aussi ci cas d' yi boo demee day gis ne tali yi dafa xat buñ jëppee kaaw si kilo euh, boo ñëwee ci tali bi ñaari bus wala ñaari camion pour ñu rombante problème la même cas aussi ngay gis fi nga xam ne euh, mooy Louga lan ngay wax ci loolu ak ban message nga ciy lancé non ak bon man euh, madame je dis que tali ak euh, état auto euh, c'est secondaire ci par rapport à un accident accident c'est d'abord c'est un comportement personnel nit ñi ñoom ñoo war a yaatante yaata yaatal seen dënn yaatalante tali bi ak lu mu xat xat xat boo bu ma la seenee xam ne fii ñu jëm man xañu ma fa ma ralentir ba nga jàll ma jàll donc c'est un problème de comportement d'abord leneen li doog a ñëw tali bu yaatu tali bu ñàkk a tali moo moo moo gën a bon donc vraiment damay woo ñëpp ñi nga xam ne dañuy dawal man damay dawal dama leen di woo ci ñoom it ci un peu plus de responsabilité ak muñalante parce que li fi gis mooy xëccoo kii lu tax man maa yore priorité lu tax muy jàll te jàlluma alors que fraction de seconde la nga muñal ko mu jàll yowet nga nga jàll ku nekk si nekk si jàmm. li ci des nag bon accident accident comme ni tur bi ñëwee bon mbiru yàlla la aussi yàlla moo koy dogal bu ko dogalee ci nit mënu ci dara mënoo ko musaale hmm. leneen li aussi mooy euh, c'est une occasion aussi pour remercier les autorités nous nos autorités locales les autorités du département de Podor le président du conseil départemental qui est là jusqu'à présent mu ngi fi il est là nee na mu bugg fee jógee te tous les corps évacués wuñu leen le maire de mairie mi nga xam ne ñun suñu commune la ñu gën a bari ci accidente foofu lañ jóge moom it euh, ba léegi li mu mënoon lépp def na ko ba il a mis à notre disposition des véhicules pour que ñu mën a évacuer les les décès. Moi, je m'appelle Mamadou Dia, je suis le président du conseil départemental de Podor. Et donc, comme l'accident concerne surtout des ressortissants de Podor, il était de mon devoir d'être là. non xam nga euh, am na a euh, euh, il y a eu 23 morts ici à Saint-Louis ça fait au total 24 morts euh, ces 24 morts il faut les dans les différents villages de l'île à Morphine euh, dont ils sont ressortissants donc euh, directeur général de la SAED a mis suffisamment en tant que président du conseil départemental de Podor, donc étant concerné par ce qui se passe, et aussi euh, envoyé par euh, le président du conseil économique, euh, social et environnemental, Ablaï Daoud Diallo, pour venir m'enquérir de la situation et rendre compte. Euh, ceci nous a permis de voir qu'une partie des gens a, ont été évacués. Il reste à peu près aujourd'hui, euh, à, à l'heure où je vous parle, il reste... Euh, six personnes à, à, à, à évacuer. Tous les autres euh, sont partis et nous pensons aujourd'hui que toute l'opération sera terminée. Et il y a un 24e décédé, lui c'est à Saint-Louis. Des dispositions ont été prises aussi euh, par le directeur général la Sayed pour que ces services l'acheminent euh, euh, au Fouta. Donc il faut dire que ça a été euh, une journée triste, une journée euh, où les gens quand même euh, ont eu à, à, vraiment sentir que le sort c'est euh, c'est, c'est, c'est, est tombé sur eux, mais il faut aussi euh, pouvoir le supporter, l'accepter, euh, étant une chose de la vie. Nous présentons nos condoléances à l'ensemble des familles éplorées. Euh, nous saluons aussi l'action de l'hôpital de, de, de, de Louga, qui n'a ménagé aucun effort pour que les soins rapides soient apportés à l'ensemble des malades qui sont hospitalisés. Moi-même, j'ai fait le tour de l'ensemble euh, des personnes qui sont malades et hospitalisées. Et nous avons eu aussi à acheter l'ensemble des ordonnances qui avaient été données à ces malades.